Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production et euh, de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. يلا بالمصطفى سنديدي يلا وبخليلك إبراهيم يلا يلا بالمصطفى سنديدي يلا وبخليلك إبراهيم يلا وبكلمك موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وسورتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من حماسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa Tawfekh Production ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal jàmm di am mbëgte ci seen teewaay tey ci seen barab bii ñoo ngi tudd Alé Thiam di kenn ci njabootuk Serigne Saliou ture bokk ci taalibe yi ànd ak ñoom di waxtaan ak yéen lenn ci fulki bi rek ci ndigalal mag ñi nga xamante ni bii ñoo àndoon ak sëriñ bi ki nekk ci bopp bi di Baye Mouride Dioum diwaanu Mouride diina ànd koog Baye Sa wala ko jege bi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi ak mbooleem koo xamante ne bi mag nga rek te nekk ci liggéey bi fulki bii nga ñu laaj nag. mbir la moo xamante ni bii mbir mu màgg la mbir mu kawe la waaye mbir mu am taarix la fii ci cees ndax jëmm ji nga xam ni mooy jëmmi Serigne Saliou Touré bi nga xamante ni bii Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ak ay rakkam dajaloo nañu tànn ko ci biir kër Serigne Saliou Mbacké yebal si ko fii ci cees ci lañ ko jox fulku bi mu indaale ko loolu ana nu mu demee moo di ni bi nga xamante ni bii sëriñ bi waaj na ba war a ñëw ñu boole ko Serigne Abdou Khadir Mbacké mi nga xamante ni bi moo doon imaamu imaam mu yebal ko Thiès ci la ko sëriñ Abdou Lahad ni ko boo demee fulku bii na ko yóbbaale te ko fay jàng loolu nag suñu borom dogal na mu nekk 1980 wax nañu tamit téere bi ñu ngi ko njëkk a jàng ci juróom-ñeenti fan ci weeru koor ci lañ ko njëkk a jàng fii ci barab bi mu doon mbégte mu rëy doon xew-xew bu rëy doon lu mag fii ci région de Thiès ndax région de Thiès région la woon boo xamante ni bii naam mu gi mi ngi fi woon lu jiitu. waaye bi sëriñ bi ñëwee lépp loo xam ne fekkoon na ko fi rek yokk na ko cig taalibe cig lislaam rattaxal na diggante yi defar na lépp waaye boobu ak tey jii doon ay at yu takku at mu jot ñu koy ànd ak sëriñ bi ci njàlbeen moo ko daan jàngal boppam ba mu jeex takk du ko ànd ak kenn ba mujj mu ciy ànd ak Baye Cheikh Anne yàlla na suñu borom dolli ay leeram mu koy jàng jàppale ci fulk bi ba noone it ni suñu borom dogal mu jël sëriñ Ibrahima Gueye teg ko ci watam moom it mu koy jàppale ci fulk bi ba tey jii diggante daaw ak ren yëpp Cheikh Ibrahima Gueye mooy taxawee fulk bi ci ndigal sëriñ bi. bis bu setit ni lañ koy tàmbalee fu takkusaan fu mu jotee rek lu ci topp ñëpp daje ñu tàmbali kuréel ba waxtu jot sëriñ Ibrahima ñëw tijji fulk bi ñu jàng bu ñu jàngee ba noppi daldi ñaan daal di waajal ndogu bu ñu ndogee ba noppi daal di demaat ba ëllëg. noonu daal lañ koy defee at mu jot nga xam ni diirub ñu nekk ci weeru koor wi muy fanweeri fan yu ma sëkk wala ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yi bis bu set amu ci benn bis boo xamante ni bii fulk bi dina naxsaay wala mu tegeeku ngoon gu jot ñu koy jàng muy téere nag bu màgg boo xamante ni bii bokk na ci liggéeyu sëriñ bi ndax al fulku boo ko déggee mooy ak gaal almasoon gu ñu xoob lan lañ ko xoobe mbiri sëriñ bi la lu nekk ci biir mbiri sëriñ bi la kon ana lan mooñ ci war ñun moo de ni bu waxtu jotee ñu ñëw teew booleeg déglu ak dal ak teg ndax sëriñ bi de daanañu wax ni ñu sëriñ Amsatu Jaxate daana wax ni sëriñ bi waxoon na ni xaside yi di fépp fuñ koy jàngee képp koo xamante ni bi yaa ngi ciy buruxal ay kàddu yu ci bokkul ëllëg lu ma gaaw gaaw ñu buruxal la safara kon loolu war naa tax ñu moytu bu baax a baax a baax a baax organisation bi nag ni muy demee saa su nekk noonu la rek waxtu wi daje waaye li ci gën a ñor daal muy ñëpp maase teewlu ndax Serigne Saliou Touré day faral dafa daan faral di wax ni Cees gii de yaakaaruma ne nit dina fi jóge tàbbi sawara te képp koo xamante ni bii yéene nga nit ci Cees mu tàbbi sa safara kooku deg ak tàbbi safara moo gën a wóor ndax téere bi bépp barab ba mu nekk kuy texee di du fa nekk kuy tàbbi sa sawara du fa nekk kon loolu bokk na ci njëriñul fulku bi bokk na ci li nga xamante ne bii tamit moom lañ ci xam ci lu tuuti ndax euh, li ñu wax rek si ndax moom lim ni ñàpp ca guy ga rek ca la ci xam waaye njëriñul fulku ak taarixu bi gën